génn di safarul xayri ak weeru mag wiinu duggaat di rabiul awal di weeru yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy ndokkeel bokki jullit yeeg bokki jullit yeeg bokki taalibe yëpp waaye di siyaare waan ñëpp nag kilifa gu baax gi fi jóge fan yi doon ku ràññi ko ci lislaam ràññi ko lool ci yoon wi di sëriñ Abdourahman Abdul Qudus ma ngi koy ñaanalaat sunu borom dolli ko yaramande ak njéggal ak ngërëm comme jotaay bi la andi parce que yene andak ak eh, chaîne yi nga xam ne ko nañ ci yoon lool muy Qasida online ak Touba Monde bi TV ak Bishir TV kon ñoo ngi leen di sant bu baax ci taxaway ak pas-pas bi ndax li wane yitteel gu leen liggéey bi li yitteel liggéeyal sëriñ bi motax ñu joggé Touba ñew ba fekk ñu fi ci daara ji nga xamné ci kadior la bok dëkk bi di tay ba Taïba tay Taïba am mari mberi Ndiaye na ci gannaaw kebemer soore na waye lolu moy wone positif bu ñu andal ci liggéey bi kon no ngi sant bokk yi nga xamné ne ñoo fi ñew teewal fi ñoo ñu ma lim mu ngi serigne cham Baay fall ak serigne Mor Mbay moo ngi leen di sant bu baax kon gamu buñ ko waxé solos gamu lamuy firndal rek moy solos yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi ni mo magge ci ci ñi ko boroomam magale fam ni ko terale fam ko tollu way yaronte bi dal, ci ngay mana xame xamee ahamiya nga xamne ne gàmmo am ko da ngay mel rek magal tuwa bu ñu màggalu Tuuba solo sa yaa koy xam rek ci may may nah, iya yi nga xamne seigne touba jere jëlee ko jëlee na ko ci dëkk bi lolu mo andi solo ci magal gi am gàmmo it non rek la demé kon ñi jëk a xam tuuti ya ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam man huwa rasul sallallahu taala alaihi wasallam kan moy yonente ya bi liñ ci mëna a xam lan ci mëna xam dara jitu wu ci la la la sunu borom lam wax ci tagogo taggo ko kañ ko limal ñu ay ay jikkoom yu rafet bokku na ca aaya ju siiw laqad ja'akum laqad ja'akum rasulun min anfusikum dane ab yonante ngi nii ñëwal na leen bokk ci yéen nag ñu muy waxal am ñu ne jullit yépp lay waxal am ñu ne arab yi lay waxal am ñu ne nit ñi nit ñi lay waxal am ñu ne Lo Makka lu ci mën am rek mu ñëw di ko tàgg ci yéen la bokk na leen maanaam ci yéen la bokk ci seen la te sunu borom da ko boole ci askan bi wu diggu nga xam ne ñam bokkal daanaka moo ca moo ca gën ci wàllu askan dong dong am na ci benn am na ci borom xam-xam koo xam ne nee na lim naa doon naa jéem a bind ak lim maame yonent bi ci wàllu ndayam ak ay maamum ba juróomi téeméer waaye amu ca kenn koo xam ne ci ci wàllu jigéen ñi maanaam amu ca kenn koo xam ne mas naa def lu yoon tere. ولا لن لو خامني اهل الجاهليه دي با الاسلام نيوو كو دانن كو داف كون نيوم نييب نيت نو باخ لا نيوو موي سيغ توبا دي واخ تا قصيده غام وورون تاغي نا يوننتي بي قد اصطفي من خيار ما اتى احد منهم بما يخجل الاخيار والعظماء يوننتي بي دنج كو تاني سي تانيف يو خامني تانيف يو خامني امو تي كين كو خامني مسنا ديف لو خامنا غور سون كون نتي لين غا ام غاتيه لو راموتي yonent yonent bi itam sunu borom wax ne azizun ma anittum ku ku ku day am la ko diis lool bu ngeen nekkee ci ay tartar noonu la noonu la xéere woon ci jullit ñi buñ nekkee ci ay tartar day am la ko metti lool xarisun aleykum ku xéer la ci yéen yéen nit ñëpp ak yéen jullit ñi ngir ngeen gindiku gëm yàlla jaar ca yoon wa bil muminina raufur rahim yonent nag ku ñeewante julit ñi la ku leen yërëm la gis nga ne sunu borom fofu dafa jël ñaari tour ci turam jox ko yonante bi lu musa defal kenn muy raufur rahim sunu borom newon na mom yalla inna bin nasi la raufur rahim mu jël ñaari tour yoy joxat ko yonante bi ar rafa yërmande ji ji ji bu ñu rafa yërmande jooju moy lan moy ko xamne yittem jep moy nga mucc ar rahma yërmande jooju nak moy ko xamne yittem jep moy nga jariñu kon mucc ak jariñu la ëmbal jullit ñëpp kon jikko yu rafet yooyu moo tax sunu borom ne ko jikko ya gën a kawe daal yaa ngi ca njobbaxtam la wa innaka la ala xuluqin azim muy jikko ju jikko ju mag a mag moo tax suñ ko wax ci xasida ga fatul fatah ahmadu man alal warastafaahu bi xuluqin bihi atala siwaahu nee na yonent bii di ahmad sunu borom da ko tànn ci kaw mbindeef yëpp mu ne waaye nag ci jikko jikko daal ki la féetee kaw kudul moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ne kon buñ ne bu fekkoon da ne dafa gëne ci askan askan neexut a roy dafa gën a ci bind bind neexut a roy jikko moom loolu mooy wane nag ku ne nag mën ngaa teg sa tànk jéem koo jege jéem koo roy moo tax mu ne woon innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq jikko yu rafet yi fa ca yonante ya yam dañ maa yónni ngir mu ñëw mottali ko xamal nit ñi jikko yi ci wax kook jëfe kook saxal ko kon jikko yonente bi jullit yi war nañ koo jéem a jàng war nañ koo jéem a xam ndax sunu borom daf ne woon jullit yëpp laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana am ngeen ci yonente bi lu ngeen mën a roy lu rafet loolee ñu mën a roy nag ku ne war na koo jéem a xam ci yonente bi ba xam lu mu doon yonente bi ku rafetoon jikko la anas ibnu malik sayiduna anas radiallahu anhu ci sahaaba yi la bokkoon moom lañ tudde woon xaadimu rasul ci jamonoom xaadim maanaam mi mooy nekkoon ci biir këram di ko liggéeyal nekk benn booyam maanaam ni ñu koy waxee di ko liggéeyal nga xam ne ba yonente bi gàddaay ñëw Madina rek la ko ndayam jébbal ngir mu nekk ak moom di ko liggéeyal ci biir këram Xasan moomu nee na Anas moomu nee na yonente bi moo gënoon a rafet jikko ñëpp moo gënoon a rafet jikko ñëpp ku ko xamoon la Anas moomu nee na xadamtu nabiya sallallahu alayhi wa sallam achara sinin fa ma qaala lii uf wala li ma sanaata wala alla sanaata nee na liggéeyal naa yonente bu fukki at te anas ku taqoo nag moom la xare yi dadaa ànd ak moom barab fu mu fu muy dem rek dadaa ànd ak moom fukki at yi yonente bi am madina yëpp ba ni mujjee boromam nee na liggéeyal naa ko fukki at taqoo ak moom musu ma ne musu maa wax kaddu lu mel ne li ñuy wax mbas ci arab cam wala cim wala wax jenn wax daal doo xam ne xaw naa ñagas ak lu mu néew néew nee na yonente bi musuma ko wax nee na musuma def dara mu ne ma lu tax nga def nangam mënuma ñàkk a def dara mu ne ma lu tax def bam ne ma lu tax defoo nangam ngir jikkoom ju rafet ne noonu la na yonante bi nekk woon ak moom jikko jooju jikko jum jum taqoo woon la lu jiitu sax ñu koy yónni ba ci ak ci ak ndawam ba ba ci magam gis nga bañ koy tuddee al amin amin mooy kuñ wóolu booba yónneeguñ ko ay bokkam di waa Quraysh booba lislaam eh, ñëwagut booba luñ ko tudd woon amin muy ku ñu wóolu ndax ngir jikko yu na fa nekkoon ca moom naka noonu yu yonante yeeg ni ju baax ñëpp dañu am jikko yooyu ci seenu ndaw ci seenu ndaw noonu la ñu mel jikko yooyu du jikko yu ñuy fà jikko yu yooyu tàggat sa bopp ngir am ko waaye tabek sunu borom lay doon sunu borom moo koy taw fee xela ay ay jaamam nga xam ne naka jekk noonu la ñu mel mooy wax ñuy wax wa aataynaahul xukuma sabiya gis nga sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ci ndawam la melowoon melo melo melo wu yéeme woowu sëñ Bachir wax na ci téere bi mu bind ci moom mi nenul baaxil xadim téere bi mu bind ci sëñ Tuba ne mboolam yi ja gaar gone musta gaar sëñ Tuba mu ne donte dafa jéggi dayoo ci xiif sax kenn du dégg kàddoom nee na ko li ñuy wax boot jamono yiñ ko koy def nee na ku ko mas a boot na romb ak moom foog ñuy defee lu naqar yàlla wala jataay foy caaxaan yi day fippu di bifu ci gannaaw ki ko boot ba dañuy mujj tiit ci moom ba dañuy mujj teggeek moom jaare fa mu soog a dal ba loolu ne nañ ko mujj miin ci moom ba kenn du ko yor di jaar ak moom fu ñuy defal naqar yàlla hakada nujaba uja Muhammad al Busiri waxoon nag mooy loolu nit ñu baax ñi sunu borom foofu lay jaar ak ñoom yonent bi nag bokkoon na ci jikkoom yu rafet ko mënoon a jéggale la lu ko nit masaan defu mu jéggal ko borom moo ko digaloon loolu xudil afwa waamur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin na nga ànd ak ñëpp ci baal ak lu bax ko xamne nak xamut ak ñak xamam yóbbu ko mu def lu mu war maam wax ko na ko na ko na ko deddu bam waxe lolu yaronte bi dafa laaj sayidna jibril alayhi salam ne ko lan la lan la sa borom jublu ci lim wax jibril nako xaaral ma laaj ko ko dil siwaat ne ko sa borom bëgg wax neena da lay diggal kep ku la dog nang ko jox kep ku la joxut ku la xagn nang ko joxew kep ku la togn nang ko jegal kon jikko yoyu jikko yu moy la alquran di wax nañu jéggale tay jëlalé xana bëggu leen yéen jullini xana xanaa bëggu leen yàlla jégal len wala yafu wala yasfahu ala tuhibbuna an yaxfir allah lakum kon tak defe naa kenn ku ne rek am nga sa digg ak sa borom lo xamne ba soñal mu jégal lako sayyidna aisha aïcha radiallahu anha ne woon na bis wa man taqama rasulullahi li nafsihi illa an tuntahk ila an حرمة الله فينتقم لله بها نانا يننتبي مصطفى يلبفهم لن نكون المصادف تجمم مفاي أمود إلا أن تنتهك لدو الخنا نخط ورما يلا ورما يدين بقوانك لنا فاي لنا فاي الدين يلا جنير يلا مام الله سنتوا مكل جيل رايكو بدون نغو دي وقت قصيدة قصيدة بشرى لنا ولست للنفس في الدارين أنتقم نانا luma fay ngir sama bop mukk luñ ma def rek ma jéggale ngir yalla lu ma wax loolu moo doon ndox bi sallallahu Alaihi Wasallam. gis nga xare Uhud yonente bi bañ ko bañ ko sonalee lol xare ba da metti won lol ci julit ñi bañu damu ab bañam mom yonente bi damu bañ bi ko ci jë ba jë bi di nacc sahaba yi mer lol ne ko tee nga ñaan yalla mom nar bañ xam ko ci jëm mu ne leen lam ubaata laanan walakin bu'ithtu da'iyan wa rahma yoni wuñ ma ngir may kon may rëbb ken ma ñaanal ken rëbbum yàlla mana dañu maa yoni ngir ma nek ab wote kat di wote ci diina ji te di yere ma kat kon wote ak yërmande lañ ma yoni tak ci allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun yàlla yàlla nga jubal sama nit ñi dañu xamul rek moo tax ñu ñu seq ak man lii ñu seq man noonu la yonent bi mënoon a jégalee gis nga ne Serigne Touba mi ko doon liggéeyal roy ko ci lépp noonu la defoon ak ay noonam lu ne wan nañ ko ko tubaab yi lu ne nañ ko yoboo ci géej gi gis nga ndar gi ñu ko jëkk a jaarale rek waxoon na ne daj naa fa loo xam ne du ma ko tudd rus na sama digg ak sama borom ma koy nettali waxoon na ko ci gisaawu chakooril ko gis nga ca géej gi Gabon wax na fa ne daj naa fa loo xam ne lu lu dul méttiitu méttiitu rooguy génn rek gënu ko métti waaw gënu ko génn rek xanaa moo ko gën a métti lu dul loolu daj naa fa kon waaye loolu lépp ànd ak bi mu ñibbisee lu mu wax afawtu anil aadaa'i turran ñoom ñëpp jéggal naa leen kon loolu moom la royee ci yonent bi yonent bi ku mënoon a jéggale la am na benn xare bu mu demoon ñu koy wax xare xare boo xam ne xare bi amr la woon ba fa demee mu tawte fa tawte ba ay yéeréem tooy mu ko nak ci ron garab talal ko ngir fendal ko am fa ci yefere ko ko fek ku ñuy wax doxoor doxoor ibn al harith man am nañu ne xuuras la am nañu ne ibn al harith am ñu ne doxoor kum ci mana doon ba fekk ko ci ron garab gi mu tëdd mu mu bàcc ci ji da di koy xàcc ba ko ne ko yonante bi man yamnauka minni ana kan moo mën a dox sama diggante ak yow tey yonent bi ne ko xanaa allah yàlla sama borom baat boobu mu wax turu yàlla ñu tudd tiital ko mu lox ba jaasi ji rot yonent bi jël jaasi ji ne ko man yem naa ko min nii fii ne nag kan moo a dox sama diggante ak yow mu ne ko xanaa nga nga nga bañ maa topp kun xayra axir yonent bi daal di koy jéggal ba ko jéggalee nag ba mu delloo ci wu nitam lu mu leen wax jiitukum min xayri naas yéefar ya ko yabaloon dañ na ne ma ñëw naa waaye kee ma gis day mooy ki gën ci nit ñi loolu la loolu la yéefar boobu seere lu mel noonu sëñ Tuubaa def na ko moom mi ko doon liggéeyal ba roy ko def na ko ca gànnaar dëkk bi ñuy wax tontu Muxsin ba mu fa nekkee am na fa naar bu ñuy wax Annaaji dafa jékki-jékki woon rek ñëw ne ci biir kër gi mel na kuy feeñalum jëbbalam wane ak cofeel loolu sëñ Tuubaa fekk mel na ay pexe ko tax a jóg ba ñëwee rek sëñ bi woo mel na ne borom xamal nako nar bi li na ci mom mu jël ñett bayit jox ko ne ko dee jàng ñett bayit yi mooy ilaa siwa yadurruka ma maa ma alayya min sultani allahu rabbi wa nabiyu lmujtaba صلى عليه ربه ربه كما اجتبى خلي وحبي وأبا مضرتي وراما من رب الورى مسرتي موي شيطان أموت من أو يوم شيطان ak jenn lor rek sunu borom musal na ma ci amuñ ci man jenn yenn yoon tak ci ne yalla moy sama borom yonent bi moy sama xarit bi nga xamne lepp lu may lor da ko bañ mom yonent bi ta sakku na ci sama borom lip lu muy bégal ba bayit yooyu la ko jox ak saru yasin mu di ko nga xam day melni lam ci jublu moy bu deme ba liko taxajuk ta moy lor señ bi mom mom mu muccu mom nar bi nga xam ne mi ngi koy mi ngi koy fàggul ak muccu mom bu deme ba ag ca mom señ ba nga xamee ne sëñ bi ci tontu Moussa ni moo nekkee ak waa kër ba wut lu këram ca pegg ba mañ ko wutalee këram nag mu war faa tuxu naar boobee di naaji nag ca guddi ga mu daal di jóg summi ko ba mel ne ko ndeyam jure woon dem jël jaasi ja ñëw fekk sëñ bi fi mu nekk ci xayma bi mu xàcc jaasi ji buumi xayma bi lonk jaasi ji taalib yi fekk ko fa waaye sëñ bi dafa génn leen bu leen ko bu leen ko la bu leen ko la daal di yónnee woolu ay taalib yoo xam ne ñoo siyaare woon ba war a tàggoo dem mu yónnee woolu leen boole leen ak moom nga xam ñoom yëguñ ci raxaw dara ne leen na geen ko dimbale ci bagage am te yërëm ko nga xam ne ñooñu moom nañuy fonke kooka ndax sëñ Tuubaa leen boole ak moom ndax xamuñu la xew noonu la sëñ bi ma doon a jéggalee naar bi mosoon na faa sëñ Mat Lamin nee na mosoon na yoon woo xam ne taalibe yi dañu dañu jug rek bëgg koo saxatu sëñ bi génn daanaka solu ci dal ne leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko alaa tuhibbuuna yaxfirallaahu lakum xanaa bëggu leen yàlla jégal leen kon jikko yonente bi jooju mu woon ak duuxuur moona wala duuxuur moomi wala wala wala wala xawras uh, moomi ndax dañoo am ñu wax ne du duuxuur la am ñu ne xawras la comme ci mën a doon rek sëñ Tuba def na lu mel noonu ak annaaj yi moomu ci gànnaar ci fi ñu foofu ñu wax tontu muxzin kon yonante bi ku mënoon a jéggi la waaye yonante bi ku tabe woon la nag ku tabe woon la indil nañ ko alal ju bari lu mat lu mat junni juróom ñeen fukki junni ci jamono booba mool ci basang la war rek sotti ko fa joxe ko mu jeex tàkk tabe googu la sëñ woon yonente bi doon ko doon ci moom moo tax waykatu arab ba di ko wax fa wajabat alayhi zakatu malin fa kayfa fala waqad day mel ne asaka ko <clears throat> nee na fa ma wajabat alayhi zakatu malin fa kayfa waqad afaada bi mastafada waqad ajaada bi mastafada nena na sëñ Tuubaa asaka waru ko ndax asaka day am ci sa loxo ren ba deen sëñ touba alalam duñ fekkante bay am ren ba deen ndax lu ñëw mu joxe yonent bi ko mandu la won ci jikkoom la bokkon jamono jahiliya wax naa la legi ne ba ci lañ ko tudde won al amin al amin nga xamne ñu jotta sax yonent bi lañ ñëw mu attaleen motax mu ne won wallahi inni la aminun fi samai aminun fi al ard ku ñu wóolu laa ca kaw ku ñu wóolu laa ci suuf mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam gis nga sëriñ bi maandu googu rek la la digal taalibe yi daana sëñ Bachir wax na ci téere bi ne ku ñu ma Maxaari Dia moo doon jëwriñu liggéey bi jamono booba sëñ Tuubaa daana leen baamu ay yoon naan leen yëfi jàmbur bu leen koy jege nee na am na bis benn benn jaam jamono boobu jaam am na jaam boo xam dafa ñëw ci biir kër gi ànd ak taalibe yi fekk kenn ci taalibe yi la fekk si kooku nag moomu ko moom dong daa am ñu ko bokkal moo ànd ak ñoom di liggéey ay fan bañ ko xamalee sëñ bi sëñ bi ne leen xayma leen xayma leen li nga xam ne jot na ko fay liggéey ci kër gi lépp ngeen xayma ko delloo ko ci alal te bu leen nangoot lu mel noonu kon maando googu sàmm googu la sëñ yonente bi meloon sëñ bi roy ko ci moom yonente ba ko weggu la woon nag kenn yebu ko woon moo tax ndax ku noppi la woon wax day jot rek mu wax te bu day wax lu am njariñ lay wax bu daa ree ree bay xaq tay daa ko def da daa muuñ yàlla xaqu bi tabassumi ñu ko sëñ bi waxee ci ca Jazbul Quluub buy ree day muuñ saxaaba yëpp buñ nekkee ci moom ñoom it muuñ rek la ñuy def jataayam jataay yu yiw rek la woon jataay yu wegeel jataay yu teggin kenn du yëkkati sa kaddu ci kanam yonent bi alxuraan moo ko tere danañ ci ñëw ci kanam danañ ci ñëw ngir wekk guñ ko wekk sëñ Tuubaa loolu la woon ci moom weggu kooku ba masa noon la dund la dundeeg taalib yi noonu yonent bi daa dundeeg saxaaba yi sëñ Mbàkke Busa ci mag ñi la bokkoon di mbokkam di muridam jaxasoo nag moom wax na ko ci xasida ga ne sëñ Tuubaa tara jullaasahu xawlahu wa hum nawaakisu xursun minhu wal kullu jaadimu neen sëñ Tuubaa ku tëy la woon ku béygu mais da ngay gis ñi toog ci jotaayam ñoom ñëpp dañuy bóof jett seen loos mel na nag ay lu kenn kenn kenn du wax mu ne walaysa bi sultaani yuxaafu aqaabuhu wala jawruhu aw basuhu aw mabaalimu te kat du woon buur boo xam ne da ngay ragal boo ko ñàkkee teggin mu mu duma wala mu bugal la déedéet دون لولو لفنا كموي رجل يلا ما التقوى هو العز كله فما فما اعتز الا الاتقياء والاكارم رجل يلا جنا كون سي مام رك مام مو كون لولي تام مام لا روي سي يونتي بي دون نكم مانونا جامو يلا تخاونا دي جولي باي تانكام نبي ñu laaj ko soxna aïcha ne ko xanaa sa borom jéggalu la say bakkaar waxu la ko liyaghfira وما تأخر mu ne ko afala akuna abdan shakura xanaa kon waruma doon jaam buy sant kon noonu la ma noono jaamu yàlla sëñ bi royee ko ci moom ci jaamu yàlla googu nga xam ne fu mu mas a dégg ak julli day julli ak lum tawat tawat lu tawat ji metti metti sëñ Bachir wax na ko ci téere bi nee na ca gànnaar nee na fekke na ko moom tawat na ay jamono ba xàmmeewul fu mu nekk daanaka waaye ànd ak loolu lépp fuñ noddee dana bëgg a teewe ci jàkka ja nee na benn bés ku ñu wax sëñ Moxtaar Penda Jang ci magi taalibe bi la bokkoon woote ci buntu néegam ne leen sëñ bi nii ngeen ko gise tawat ji néewal na ko doole ànd ak loolu lépp fu ñu noddee mu bëgg a julli ji ama doon sàkko ci noddukat bi nag ba nodd jotatee mu soofeel kàddam bu ko defee Sidi Ibnu mi jiite buñ noppee ñu xamal sëñ bi ne ko julli jot na waaye mbooloo mi julli nañ ngir mu bañ a toggoo rek da ñëw ci jàkka ji ndax tawat ji kon waaye noonu la ko julli ñore woon waaye sëñ Bachir nee na dégg naa ko mu ne bokku na ci karaama yi gëna a mag yi ma sama borom jagleel fu mu léeg rek ma ag ci tawat fo xam duma mëna taxaw ma may mëna a waye fu ma dégg ak noddu sunu borom da koy woyefal ba ma dem julli ji julli ji julli ji ba ñew bi nakkon kon kon sëriñ bi euh, liggéeyal gi mu doon liggéeyal dafa mel da cee boole won diko roy nam ko waxawon ci waxi bu rek xaj na at mi at mi juroom xaj na at mi ñaari xaj juroom benn weer yi mu koy tagg yi muy julli ci mom waye roy ko nak diko roy moo tax salaatu sitta bi matxi sitta taatihi battamaati saa i yonente bi di ko mënoon a matal kóllëre ku amoon wóllëre la yonente bi jikko yi yu jullit yi war a di ko royo ci moom ku mataloon kóllëre la Sayyidina Anas moom moo tudd léegi ne woon na daa nañ ko andil addiya addiya ju am solo mu ne nañ dem kër diw tudd seen soxna jox ko ndax xaritub soxna Xadija la woon Xadija mooy soxna soxna Xadija moom la jëkk a yor mom la jëkë yor mu sonn ci mom lool gannaaw bi mu wujji boroomam ca Makka boobu ñëwagul Madina gannaaw bi mu wujji borom lu yagg nak muy sàmm kóllëre googu ba koy sam ci ay xaritam yóbbu leen ko diw xaritum xaadir jële won bu ko bëggoon kon non la matale woon kóllëre sayyiduna abdullah ibnu Umar, ci ko kóllëre sax gannaaw gannaaw ki ko seqaloon am na bis muy dox ci kaw yoon and ak yenn ci sahaba yi yenn ci jullit ñi dajeeg ben sam ben sam na na sayidna ah, sayidna abdullahi ibni omar dindi kaala gim kaala woon muur sàmm bi wàcc warwaay bi mu waroon jox ko teg ko ci kaw ñu ne ko ah, ab sàmm li ëpp na ci moom mu ne leen waaye juram da doon xarita omar maanaam seen ñaari bàyyi ñoom ñaar omar ibnul xataab ak bàyyi sàmm mu ne dañ doon ay xarit te dégg naa yonente bi ne inna min abarril bari barri an yasala rajulu wudda abi maanaa inna min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abi dégg naa yonente bi ne bokk na ci jëf yi gën a baax nit ki di jokkoo wëllërey baayam kon matal kóllëre kon daal ci tënk yonente bi wàllu jikko ne ko borom ne ko wa innaka la ala xuluqin azim jikko moo ci féete woon kaw moom ko sëñ Tuubaa di wax wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan wahara wan mithlu qattu lam yura walam yura fi cheeni moo gën a mat ñëpp ci jikko ni mu gëna maté mate ñëpp ci bind ku mel na ma musta am ta du te am ak ma bi sallallahu Alaihi Wasallam. boromam kañ ko dem ba ag ci ne ku topp yonente bi yalla nga topp may yuti faqad allah xam nga ne alquran joju baat yoy la sun sëñ Tuba jël tënke ko qasid ak midadi may yuti faqad ata allah Harafuni mu and ci lu man ñetti bayit sunu borom ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma la loolu ngay yërmande mbindeef yep mbindeef yep yonante bi seen yërmande la julit ñak ak ñi lerna. jullit jullit ñi mom lar na seen yërmanday aduna la di seen yërmanday àllaaxira yéefar yi nak ñoom it seen yërmande la ndax geemuñ ko waye sunu borom jamal na leen ci lamu da mbugale ñu jekk ña be yonante bi ñewé amna mbugal yo xamne tegatu ko sax ngir yonante bi borom wax na ko wa ma kana allah li yu'adhibahum wa anta fihim du mbugal ta nga ci seen bir bu jëkk di layaleeg sunu borom day wëlbati suuf si lam daa lam daa mi ngi ci alquran lam daa mbugale ñi mu labal leen ñi mu soppi leen ay golo wala ay mbaam xuux loolu nag da koo fegal yéefar yi jamonoonte ak yonente bi ak seen tooñ yu bari yëpp ngir lan ngir yërmande yonente bi ji mu nekk ci mbindeef yëpp moo tax yonente bi ne woon xayaati xayrun lakum wa mawti xayrun lakum samak dund aw yiw la ci yéen sama faatu yit noonu sunu borom tuddi ko nuur ak leer ngir fonk ko fonk qad jaa qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin tuddi ko siraajum munir ngir lan ngir mooy leer gi leeral adduna leeral yonent bi ci la adduna leer leere leeram it moo fay lëndëmu kéefër moo fay ndax lëndëm lu mu lëndëm lëndëm bu ak leer duggusee lëndëm ga day fad du ko gisati noonu la yonent bi mel ci kéefër ak see ak ak gi sunu borom yëkkati aw turam wa rafaxnaa laka dikraka foo tudde yàlla tudd yonent bi booy nodd booy liqaam booy taaya booy xutba nga xam ne seen tur daa lëkkaloo sunu borom fonk ko bane moom yàlla ki malaakaam danañuy julli ci moom yéen julli ñi dee leen julli ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabii yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam jullig yàlla ci yonent bi ñu ne mooy màggal ko ak ak kañ ko ak yëkkati ko bu ko defee loolu loolu itam di wane fonk gum ko fonk saabu buy wax ak moom day wax ak moom ci ñeewante bu mel nee ne lu koy lu koy yedd sax day jëkkee ak ñeewante lu mel ne afa allahu anka lima idinta lahum yeneen dafa am ay jamono ñu dem ci benn xare naafeq yi tàggu ko mu ne leen toog leen man ngeen a toog yeneen bi ne ko yàlla na la yàlla jigal lu tax nga leen di jox digal ñu toog moo mënoon ngaa bàyyi rek bu ko defee da nga xam ñi wax dëgg ci ñoom ak ñi waxul dëgg ndax boo leen boo leen waxutoon toogalee nit duñ dem kon boo bàyyoon noonu da nga xam ñi dëggoog ñi dëgguwut waaye dafa jiital afallahu anka yàlla la sa borom jéggal loolu lépp di wane fonk gum ko gum ko fonk gis nga ba mu mel lu koy yedd ca suuratu suuratu abasa itam euh, ca digganteem ak euh, silmaxa boobu abdullah ibn ummi maktum silmaxa la woon doomi nijaay yi soxna xadija la woon waaye dafa dafa néewoon doole benn bis yonent bi nekk ak sangi maanaam kilifay quraish di leen woo ci lislaam ibn ummi maktum moomu di di yonent bi xamal ma diine wan ma yoon wi di ko wax yoon mel na yonent da ko da koo tëlut ngir kilifa yi lay woo ca diine ngir bu ñu duggee ci diine lislaam ëpp doole xeer googu rek moo ko jàppoon waaye ñàkk gim ñàkk mel na lu ko ñàkk a faale sunu borom xaw ko ca yedd waaye ba mu koy jàkkaarloo wut ak moom naan ko naan ko naan ko def nga nangam abasa wa tawalla ñëkk na na xar kanamam wan ko gannaaw an jaahul a'ma nga xam ne jënu wut moom sax naan ko def nga nangam لولو لولو لولو لولو غير فونك حدا كو فونك با ملني كوكو روس تي واخين سبحانه وتعالى ما تا يونت بي ابن ام مكتوم موم بو كو مسان غيس دانان كو مرحبا بمن عاتبني فيه ربي بيان فني ياتل كو يو ميغا خامني سان بوروم يادنا ما غير ياو موي عبد الله داك مودي نكو فونك لول با دانكو نودل بو مسان ديم تي خاري صاح دي ريك مو بايكو مدينه موي جيتي جولي ني دراجه جوجي لاكو مو جون جوخ غير غير غير لولو fonko koko moko fonko gis nga buy wax ak mom sax buy wax ak mom du ko du ko du ko du jaar ci turam day indi aw meloom yonante yëpp seetlu nga ne sunu borom bu leen buy wax ak ñom da leen da leen di tuddu ya Nuux ya Ibrahim ya musa ya daud ya Isa ya zakaria ya yahya yep ñu ci alquran waye ya Muhammad amu ci alquran yaa ayyuha rasul la lay wax yaa ayyuha nabiu yaa ayyuha almuzammilu yaa ayyuha almuddathiru yooyu kon di wone fonk kum ko fonk ba bu koy woo du jaar ci turam yonent bi ay sunu àgg na ci ba giñ ci dundam noo xam ne kenn musta gis sunu borom def ko kenn gisul ci alquran fa sunu borom giñee ci dund kenn ko dul yonent bi la amruka innahum la fi sakratihim yamahuun loolu lépp di wane fonk gum ko fonk moo tax yonent bi mu ci saxiix muslim mu ne ana sayyidu walade aadama la faxar maay sangob doomu aadama yëpp te waxuma ko ngir damu waaye la sunu borom dogal la defal ko ko mu wax ko sunu borom warmaal ko ba digal jullit yëpp ne leen warmaal leen ko mooy li ma junju léegi yaa ayyuha alladina amanu laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nnabii wala tashharu lahu biljahri bilqawli wala tashharu lahu bilahu bilqawli ka jahri bacdikum li bacdin an taxbata acmaalukum wa antum la tashcuruun yéen jullit ñi bo len yekati mukk sen kaddu muy tim kaddu yonente bu ngeen nek ci mom day len suufeel sen kaddu ngeen warmaal ko gis ngeen li dañ ko bind sax ca bara barabam bu tedd ba ci medina ngir ngir ku fa dem bayiko xel ndax bu ngeen de yekati sen kaddu lu ko tim lolu man na yak sen jëf te du ngeen ko yek gis nga ñak ke war ma kilifa day yak jëf kon mboolem ñi ñecc wetu kilifa yi na Cheikh muntaka. Muntaqa nañuy bàyyi xel lu mel noonu sunu borom yeddul na sahaba yi ngeen ji nga ñoo ngeen ji jullit ne leen yëkkati kaddu muy tiim kaddu yonent bi bàyyi leen ko bu ngeen koy def mën naa yàq bu ngeen ko dee def mën naa yàq seen jëf te bu ngeen ko yëg kon loolu lu mat a bàyyi xel kilifa dañ koy warmaal dañ koy wekk bi ba tey ci warmaal bu ko yàlla warmaal àggoon na ci ndax jullit ji ne leen yaa ayyuha alladina amanu laa tadxulu buyuta annabii illa an yuudana lakum ila taamin gayra naazirina inih walakin ida duaytum fadxulu fa ida taimtum fantashiru ولا مستانسين ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي في فيستحي منكم والlahu laa yastahi laa yastahi min al xaq nee na yéen jullit ñi bu leen dem ca moom mukk te yëgluwu leen bu leen jekki-jekki rek bett ku ñëw te yëgluwu leen mukk bu ñu leen woowee aw ñam ca kër ga dem leen waaye fu ngeen seppee seen loxo na ngeen ñaanlu na ngeen yewi ko ndax bu leen fa toog mukk di felli waxtaan ndax loolu mën na koo lor mu mu am kersa ci wax leen ko nag doo am kersa moom ci wax ci wax leen dëgg loolu lépp mu wax ko dem ba ne leen wala an tankixu azwajahu min baadihi abada soxna yi mu yor bu leen wanee gannaaw dellu ci boromam bu leen ci jël kenn nga xam ne bokk na ci jigéen ñi nga xam ne jël leen dafa xaraam soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bokk na ci war ma ji ko sunu borom jox digal julit ñëpp mu jox ko ko moo tax Sëñ Tuubaa wax ca xasida ga baana lana maan bila iltibaasi kawnu ni kawnu abil qaasimi xayra naasi ñun ñëpp ñun nit ñi leer nañu nañu ne abul bàyyi qaasim ñi qaasim moo di taawam moo gën ci nit ñi waaye du nun nit ñi dong nag du ñun dong de baana li jumlatil malaa'ikil kiraam kawnu rasulillahi lil xalqi imam malaaka ya ca kaw ñoom ñëpp leer na leen naññ na yonente bi mooy imam bi def yëpp moom la sunu borom jiital ci ñëpp موتاح مونيك باها به الأجداد والآباء به عطل العرباء والعزماء يلانتبي أي ما ممتي موم لني بوكريو هم قال لني خامون موي دوم دي دمو بايم ولي دمو مامم نينا يلانتبي نك أي ما ممكي بايم موم موم لني دمو مم لني دمو ده عربك عجم عربك نيدول عرب نيب تي موم لني يكتكو موتاح مونيك وضوح كون المجتبى شيخ الورى أظهر من الشمس ضحا صحوا تراب yonent bi nag gi mu nekk sëriñu mbindeef yëpp gën leen féete leen kaw ni jantum njolloor leere ni la loolu ni la loolu leere naññi moo tax yonent bi ku ñu war a bëgg la bëgg ko ci boppam farata la Sëriñ Tuubaa wax na ko wasalli dëban ala man xubbuhu furida yàlla yàlla na nga julli ci yonent bi nga xam ne bëgg ko farata la dañ ko faratal kon yonent bi ku ñu war a bëgg la ah nekk na ci saxiihul Buxaari ak Muslim téere yi xam ne gannaaw alquran ñooy téere yi gën a wér yonent bi nee na لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين نينا كن نتيين غمم دو مات غم يالام دو مات لودول بو داما كوي غنال بايام اي واجورا مانا غنال كو دومم غنال كو نيت نيب كون يونس بي مولا ورا غنال لب موتاخ موتاخ نيب دنجكو وات نكو ورا غم بوكو دافاي نك بيغ يونس بي جيخيت جامارا ام موي روي كو فخيم يور اي جيكو ndax ko bëgg da nga koy top inna muhibba liman yuhibbu mutiu kon roy ko moo ci jiitu bari loy loko tudd di julli ci mom bu ko defé nak la ngay jëlé ci lolu bëgg yonent bi lañ cey lañ cey jëlé la ci gëna koy moy aljanna newoon na man ahabbani kana ma'i fil janna ku ma bëgg maag yoy bokku nek aljanna dal nañ ko yalla defal sahaba yi moo tax dañ ko bëggon lool dañu bëgg yonent bi ba amuñ ci mom sago anas mu ibnu malik moomu nee na gis naa rasulullahi bis watkat bi di ko wat di wat kawar gi maana nee na saxaaba yëpp wër ko nga xam ne benn kawar du rot lu dul bu danañ koy jëkkante dana dana rot ci loxol kenn ci ñoom noonu lañ ko lépp dañ koy téye jàppe ko lu ñuy barkeeloo gis nga sayidna xaalid ibnu walid am na euh, bés mbaxanaam mu mu yoroon mbaxana ma réer mu sonn ci loolu di ko wër ñu naan ko xanaa du mbaxana dong mu ne dafa am ci kawaru yonente bi lu ca nekk kon noonu lañ ko fonke woon di ko bar kon barkeelu ku ko weddi yaa ngi na ne la yaa ngi weddi jëfi sahaaba yi radiallahu taala anhum sëñ Tuubaa nag bu dee bëgg yonente bi moom daanaka ñëpp ci moom lañ koy royee dem na ba koy ba koy dàkkante la boppam qaala al muhibbu li rasulillahi muhammadun sibtu habibillahi soppe bi yonente bi mooy wax di di di Muhammad sëtu Maam Balla Aïcha ni mu ko ni mu koy dàkkantale dem na ba àgg ci ne bi man bu xibbi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla sunu mo dafa woon ci alquran ne zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaai maanaam doomu aadama dañ ko mooñale bëgg yii soxna yi alal wurus xaalis sëñ Tuubaa na yooyu yëpp nag bëgg yonente bi fàttaloo na ma ko bëggatuma dara ngir ngir moom ينسي فؤادي حبه حب الورى فكيف لا ومن عصت ما جرى نينا بغي مكو بغي فاتلو نما صاح بغي ميد ديف يمو صاح تي اي دوم اك يوي اي ميد ديف ييب صاح ما نتو ما بغي كين يرانت بي دمنا با اغا تي ناي بغي مكو بغي دمنا با ملنا كلم لاي لك مانا تي بك تي بك صاح دوما خامي بك لا نيك ولا غودي غير بغي يرانت بي احمد من احمد من صار نهاري ليلى بحبه وقد اضاء الليلى أن أنا غارق غرقت من بحث من بحر محبة الرسول وأرتج منه الرضا والقبول نينا دما فرسخ لب تيجي بغير أنت ما تعال لب فر خم جيج بوش الله به مو لي فيت فيت كنا نانا نلون لما ما تخون نك سنجوا ديكو لجيل نك ديكو لجيل غير يالله ديكو جامع برامم وخنا كجاقسي ديك مقدمة الخدمة ناوي العبادة لك بخدمة لعبدك ورسولك محمد sallallahu taala alayhi wa sallam dama la yéenee jaamoo ci liggéeyal sa jaam bi de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sopp ko itam di ko liggéeyal waaye sopp ko nee na sopp ko rek moo tax ma koy liggéeyal waaye dem bay ñaan boroom loolu naan ko nang ma def ma koy liggéeyal waaye nag di boole di sàmm warmaam jaalani llahu xadima xadarati wa jaadali jalla bi xifda xurmati yàlla def na ma la yàlla na ma def may liggéeyam may liggéeyal xadaram ba sallallahu alayhi wasallam sallam di sàmm warmam sàmm warma yonente bi ni ko ni ko sëñ di def da nga koy seetlu ci mbindam xam nga téere yi ci des yépp da nga gis bu ñuy tudd yonente bi dañ koy tàmbalee fu sori dem bay tudd soxna Amina sëñ eh, eh, Abdullahi mi ko jur tàmbalee ko ci seenub ànd fu sori foo xam ne sax nopp ko dégg ak di ci wax lu ne sëñ bi nag moom dafa jékki-jékki ne laylatu mawlidin nabi fa la tàmbalee mu feeñe la ko jiitu lépp da koo bàyyi ngir sàmm wormaam ji mu wax fii gis nga buy buy buy buy tudd soxnaam yi ma yoroon yonente bi sax na ci siira ne lu mat juróom-ñeent bàyyi na leen fi waaye ngir sàmm wormaam sax ñeent ña rek lay tudd moom Sëñ Tuubaa soxna Xadija bi ummina Xadijatin bi ummina Aichatin bi ummina Xafsata bi ummina Zeynaba du du ko romb loolu lépp di mooy li ma wax wajaadali jàlla bi xofsi bi xifdi xormati dem na ba ne xam naa ñi nañuy tënk sax waxtu waa ngi waxtu waa ngi dem gis nga liggéeyal ko waaye ànd liggéey bi lépp nag euh, lu mu ko defal xeeb ko lu mu ko mas a defal xeeb ko moo tax nga gis xasida yi xasida yu bari da ngay gis mu koy tuddee ab muqaddama ab muqaddama gis nga jaalibatul maraaxib xuqumtu naziman lidil muqaddama gis nga nooru daara ni ilayka minni busharu muqaddama ba ca ba leen ba leen jiitu woon sax muqaddamatul xidma ab tàmbali ba ci mujjëm nooru daaree ci mujjëm la waaye yëpp muqaddama lay wax ba ci taysirul asir wash kurtihil muqaddamati rabbiya nga xam ne lum liggéey rek teewut da koy da koy da koy da koy jàppe kuy soo kuy door a tàmbali kon positif boobu la amee woon waaye lu mu ko defal nag kon lu mu ko defal xepp moo tax ma koy tuddee tàmbali waaye fas yéene du du du tekki la xasaayam sëñ Tuubaa dana woon man du ma wàcc damay liggéey ba aljanna ah di ma xoo ila duxulil janna dama koy liggéeyal ba keroog may dugg aljanna defe foofu foofu la mën a yem looloo taxoon nag ma fonk gàmm lool gàmm gi ñuy waajal looloo taxoon sëñ bi fonk ko lool di di digle woon ñu koy def gis nga sax moom weeru mawlit sax ci la daa tàmbalee bu duggee rek muy wane ak mbégteem gis nga am na xasi xasida goo xam ne da koo defoon ngir tatagal weeru gàmm bi mu duggee rahabtu taadiman bi chahril muntaqa alayhi taslima munil al irtiqa maa ngi tatagal ngir maa ngi màggal weeru yonent bi dugg di rabiul awal bashartu ya rabiu kulla di tuqaa yaa warfa nuurin wastifain wa intiqaa yow rabiu bégal nga képp ko ragal yàlla mbégteem nga andil nga ko mbégte ndax yow mi nga xam ne yaay ndabul leer ndabul di ndabul tànn laka aqulu marhaban lil muntaqa yaa man xabaa bihi wa alayr tartiqa wa alayr tartiqa ne ko maa ngi lay wax nag marhaban bienvenue yow weeru ngir yonent bi nga xam ne yaa ñu ko may ci yow la feeñe sallallahu alayhi wa sallam weeru yëpp la daa màggal nee na li tax ma koy màggal mooy li mu nekk ndabal yonent bi di weeru yonent bi daani ila ihyaa'i da shahri kawnuhu daani ila ihyaa'i da shahri kawnuhu li xayril wara warfan xawaa kulla suudadi mu ne màggal ko lu mag màggal guddi gi lu ñu màggal la mu mawliduhu muazzamu mubarakun muhtaramu تعظيمه ينحتم على ذي التقدم لونو مغل لو باركل لونو ورمال تا مغل كو صاح دا فوار نك نين دا فوار تعظيمه بسنتي سنه موي لوي دفنا يالا تخ تا بوم ген نيكو يوننت بي ردي لوي دف دبل كو سنه كون فخه با ليب لو نخ يالا نيو ديكو تا ديف ديكو مغل ليب رك لو نخ يالا دم دي فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا manam kep ko xamne magal na guddig yonente bi mu guddig gam ko ko magal duñ la hisab ëllëg ta hisab moy manam dërëm bu ne bu dugg sa dugg sa loxo rek ñu hisab nan la ci duggé ndax lewoon na ba mu génné nañ la ci génne lool defe na ko ko sunu borom jëflanté rek boo tuut musiba am neena magal guddig yonente bi nag day musla ci hisab fa man yu'adhim mawlida xayril baraaya ahmada faka shahidin shahida badaran bi xayri ku màggal guddi gàmmu mel nga ne ku teewe badar xare badar xare badar yonent bi nee na sunu borom yërndu na leen ñoom ña ko teewe woon ne leen def leen lu leen neex jégal na leen daraja jooju la ñu amee ndax weesu nañ fu ñu defee lu naqar yàlla kon daraja jooju defe naa ne kenn mënu ko weesu dem ba ne fa kullu man anfaqa fi mawladihi al musharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami nee na képp koo xam ne def na ci sa alal dépassé nga sa alal ci gàmmu donte benn dërëm la danga ci aw yiwu yu toll ne ko àndoon ak bi ci xare yooyu mu tudd dem ba ne sax li ci gàmmu sax ma mënee su koo xam nee na yib bi ci gàmmu xamee sut nu mu toll li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu idi sawnuhu anil wara yan xatim nee na gàmmu daal mbóota ngi ci moo xam ne dañ koy nëbb ndax jaaduwul sax ñu koy wax mbindéef yi kon mel na ne loo ca jortu ci yiw ak loo ca jortul mi ngi ci mi ngi ci gamu sëñ touba num ko da dundale jangal quran tubbi yalla julli ci mom jang am daax yim ko tagge ak yim ko tagge wut muqaddamatul amda jazbul wa nafi'a mim yak yoy di ña nga xam ne ñoo ñooy jàng ci penc mi mu len di ñewut len soti geut gët koloñ di len jox ay ñamage naan ñoo xam kenn xamul lu mu toll gis nga sëñ Saalu radiyallahu taala anhu ci soññee gi mu daa soññee ci gamu amna ci bo xamne leral na gamu ngi jare nam da mel ñoom da mel nga xamne kenn munuko munuko misal koo sëñ bi gamu ñoron ko ba wéru gamu sax buy tàggoo mu defu qasida di metitlu dem gi wéru gamu di dem ngir bëgg yonante bi amna fuñ waxe abar rabiu siwal idbaari bin niami min ba'di iqbalihi bil 'ard wa naami nee gamu day mi ngi jeex nak mi ngi wone gannaaw gannaaw bu mu ñëwé léegi melna ne dogu na nag ci dem abar rabiu siwa tawdia murtaxilan bi maa lahu min busharatin wa min karim gàmmo mi ngi nii bëgg a tàggoo bëgg a laxas dellu ak li mu ëmb ci mbégteeg ci teraanga ànd ak loolu lépp ñu ne day dem abar rabiu rabiul mustafa wazari si war rawaxi wa gayra sayri sayri lam yarim nee na gàmmu daal mel na ne dogu na ci dem dogu na ci dem muy rabiul mustafa yoro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag fa qultu حين أبى غير المصير له سر يا ربيع وما في وما في وما في منك من سأل وما في la woon mooy wee tax ci daroot chanre mu def wama fii ne ba nga xamee ne gis naa ne dogu na ci dem te bëggul lu dul dem ma ne ko yaa ngi dem waaye kon nag na nga xam ne doyalu ma ci yow yow weeru gàmm doyalu ma ci yow de sir rachidan bi fuaadi ya rabiu ila man kunta darfan lahu waqra lahu kalimi sir rachidan li rasulillahi sayidina waqra ilayhi salaami min yedi wa hawi kon nag demal dellul ca nga xam ne yaa yaay ndabam ci yow la fay ñëw yonent bi te boo demee nag nang ma ko jottalil sama nuyoo nang ma ko nuyul nuyoo boo xam ne ci sama loxo la jógee sama gémiñ muy muy bindam ak lamiñam wa qul lahu ya rabbi al xayri inna lahu wa qul lahu ya rabbi al xayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi daaxilini nang ma ko waxal moom yonent bi ne ko ab liggéeykatam a ngi fii boo xam ne lam gërëm ca la koy liggéeyale moom sëñ Tuubaa wallahu yaru gàmmu lahu xadimun yusalli bi salaami huna alay bil ali wal ashaabi bil qalami ab liggéeykatam ngi fii moo xam ne waxtu wu ne mi ngi julli ci moom julli guy ànd ak muy salaatu ak salaam kon nag alayhi xayru salaatin bi salaami bila xad xaddin wala xayatin mamzujatan bi demi yàlla na yàlla dolli teraanga ak wóolu ci moom moo xam du am ab daytal du am ab daya du am fu muy yem julle go xamne dañ ko dañ koy ak sama dara nga xam day melne lu joge ci man la gëna sori ci man fa gëna xaar ci man ci lay joge jëm ci mom kon dafa lool rek la bëgg wax rek moy no yonent bi sora ci mom ak num ko yene sunu borom no loolu mu santane ci ñu defal ko ci mom muy julli ci mom sallallahu taala alayhi wa sallam muy sax far sax di wéyal altene bu ñe guddi altene gone sax mu melna day gamu ba diggaloon ko mam ciarno mu saxal ko darul muati gis nga ne guddi altene gune dañuy fanane gamu ci darul muati barab bañ koy defé sax mawlid mawlid lañ ko tudde lolou defé na ku ku xam daaru rek xam nga ko lolou lepp di wane xër gu señ tuba xëroon ci yonante bi waye di wane itam am solo gamu am solo gamu gis na yiw yi mu ci wax rek ku ko magal mu ko defé nak buñu gisé ku naan waré su ko defee warta nangam non señ Tuubaa doy nañu sëkk doy nañu li señ Muntaxa di wax nañu wéetal yàlla te doyloo señ Tuubaa señ Tuubaa ku mu doy lepp luñ ne ci la nekkon du to ci soxla ci ab tektal nekk ci sëñ Tuubaa nekkoon rek do do doy na sëkk ndax lam am ci yàlla amoo ko ca lam ca xam xamoo ko ca lam am ci yonent bi noonu lam ci xam noonu kon nag lu mu joxoñ rek ñun ñëpp foofa la ñu war a jaar te fa la ñu fas yéene jaar noonu ñaan sunu borom dina ci dimbali di sant bu baax a baax bokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngir am ay xibaar yu leer te ak lépp lu xew ci wàllum actualité nationale international abonnez vous à cette chaîne de ASG Production ah.